Jene getelu sen sen Rumi Venkat TV. jërë ngeen jëf ci ànd bi ak euh, bi nga xamante ne rek nañ ko koy topp saa su nekk ci site internet bi nag di Rewmi 24 Sénégal li gën a fas ci bopp xabar yi nag dañu koy do rek euh, ginnaaw convocation bi nga xamante ne rek moom la ñu daal di euh, jox nag ki nga xamante ne rek moom moo nekk journaliste bi di Adama Gaye keneen ku ñu joxaat convocation nag du kenn ku dul Moustapha Diakhaté nee na nag convoqué nañ ko niki suba foofu ca cybercriminalité xamagul nag lan moo waral lekk boobule convocation ba tey ci wàllum xibaar nag bu ñu jógee foofu dañuy addu wax ci kàddu yi nga xamante rek madame Aïda Mbodj daal dina koy yëkkati nag eh, ci ndam lu am solo yi nga xamante rek Pastef daal dina koy am ci élection législative yi ginnaaw ba mu nuyee ay compatriotam dina nag tey jii ñu ngi célébrer rek victoire bi nga xamante ne moom moo tukkee ci élection yi fi jàlloon ni ki dimanche ginnaaw bu mu gisee ne rek askanu Sénégal am nañu yaakaar ne changement dina am nag ci coppite yi nañu ko Amadou Bassirou Diomaye Faye comme président de la république niki ki dimanche nag fukki fan ak juróom-ñaar ci wéxu novembre ci atum 2024 da dañ nañu renouveler wat confiance bi nga xamanteni am nañ ko jox nañ nak parti Pastef majorité ak ay alliés ak ay coalition yu Diomaye président mu nek ay hashtag yo xamanteni ne daat na koy ci élection législative yi nee na nag victoire nekul victoire politique waaye victoire peuple sénégalais yépp la ndax système bi nga xamanteni rek yag na fi lool ne na naka ndam ni ndamul ndaw li la ndamu ndaw yi la ndax ñoom ci seen jëmmi bopp rek ñoom ñoo bëgg a prendre seen destin en main nekk na victoire boo xamante ne rek bu ama am solo la ne la nag jamono ji bu nekkoon nelaw rek jàpp nañ ne yeewu nañ te tey ji nag responsabilité yu am solo yi nga xamante ne rek moom moo daal di gàllu ci seen doq dinañu ko transformer jëfee dige yi nga xamante ne rek dige woon nañu ko jarale ko ci ay jëf yu concrète te mbir mu nu mel nag dinañu tabax Sénégal mu gën a naat gën a am souveraineté di kaddu kii di madame Aïda Mbodj ba tey ci wàllum xibaar nag bu ñu jógee ko euh, foofu nag dañu daal di rek addu wax ci président de la république li nga xamante dal daal dinay ñëwaat ci rôle assemblée nationale ak loi yi nga xamante rek jot nañ ko fa wara duggal dugal ba war ko fa voter ak contrôle bu action gouvernementale bi nga xamante ne ñu ngi koy càmbaraat bu baax ci walum politique publique bi nga xamante rek daal dinay am ay coordonnées yu gouvernement bi moom ci jëme boppam dal dinay sàkku rek ci gouvernement bi rawatina ilimaanu jawrin bu njëkk bi nak ak ministre de l'économie du plan coopération et du ministre des finances budget bi daal di finaliser rek présentation conseil des ministres bu loi bu projet loi finance bu atum 2025 bi nga xamante ni rek fas yéene nañ ko lañ bët ba tey nag ci wàllum xibaar bu ñu jógee ko foofu nag dañuy daal di addu rek wax ci kàddu yi nga xamante ne Marvel doy dañ ko yëkkati nag nee na daal man dama bañ Sénégal kan laa damay defe ne à chaque fois rek comme homme politique ta nak yoruma sax profil bi ata bo xolé ba ci bi rek vrai psychopathe la ñaareel ba nak ne sorti alliance pour la république dat dinay tay la c'est ben mouvement politique bo xamne ken xamul ko wala sax mom rek mo ci nek membre ngir nak infiltrer opposition bi benen ba ci top mo neena ko neena awma ben base politique awma tamit ben militant waye nak sama gémmiñ reyna ñeenteel ba nag nee na moom ci jëmi boppam rek ab homme politique bu ñu gën a bañ la waaye moom ci jëmi boppam rek dafa daal di bañ Sénégal banen ba ca topp nag moo di damay wër eh, di dugg nag ak frappé porte yi ak toog ci télévision yeeg yi ngir nag ñu ràññee mat boo xoolee ba ca biir rek buusoma yota eh, depuis ma dégg nag Ousmane Sonko dafa menacé wu ci ay fossoyeur yoo xamante ne yu république la élimination nag nekk na mbir moo xamante ne rek mbir mu ma la ci kanamam kene kii di Ousmane Sonko dina dina per contrôle ndax sama gémmiñ te lu des nag di sama yaram lay doon moom ci jëme boppam daal dinay wax ne rek man maa nekk sujet boo xamante ne rek ay vapeur la ci ay ñaq waaye nag naam sax loolu yépp am na waaye duma bàyyi kenn rek eh, daal di may eh, jaay ci mbir munu mel nag mu daal di wax juróom-ñetteel ba eh, man psychopathe la deret lay dunde ci mbir munu mel nag moom laa yàgg encouragé ci ñi nga xamante ne rek ñoom ñu doon faat ci nguurug Macky Sall ak rey nag ndaw yi ci bu ñu ko soxlaa te nag du ñeen rek judul ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, sympathisant Sonko juróom-ñeenteel bi nee na nag qualité bi nga xamante ne daal dina koy am moo di maa màgget di bañeel ba noppi réew répugnante man may kan beneen bi ci topp nag nee na daal faw ñu veiller rek ci eh, ku ci nekk rek daal di xool wala nag benn femme bu mu comme ni ko Ousmane euh, Sonko waxee ci diirub juróom fukki at yi ñu jëm bu fekkee ne rek Sénégal yi ñoom seen jëmmi bopp ay chrétien lañ dinañu votel nag Jomaay waaye nag bu ñu ko votelee ñoom ñoo xam ko kan na di kan kii di Merveille Ndoye benn peuple bu alku mooy jox majorité Pastef comme na mu ko dal di waxee ne na nag yaakaaru ne moom ci jëmmi boppam rek amul leen loo xamante ne rek euh, pare na pour jeexal fi français CFA loolu nag moom ma waral waaye nag nee na nag moom ci jëmmi boppam rek bu munoon dem ci Macky Sall jamono ji nak dina ko def wala mu uteli Amadou Ba du hésiter nak di saga rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay njabotam waye mom nak nee dal hésiter wul ben yon ñu attaquer ko nak ci église bi rawati na nak ci ay naataangoom fukkeel ba nak nee je bu muy tole nak dina dal di xaru bu fekk na rek peuple bi nga xamantene ñom lay tuddé chrétien ñoom ñoo alako ba nëgati rek na ngay defal publicité kii di Ousmane Sonko saay leen ko sàkko kooku kan la di kàddu kii di Merveille Ndoye jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàtte abonné bés cloche de notification yi ngeen mën a xibaar